ah sunu mbokk amateurs yi samedi premier avril 2023 ñu ngi fii si rue 13 angle douze kër Mbay Guy gi mais rue 13 angle 12 nag dafa bokk si biir Médina mais balaa ñoo waxtaan ak champion bi am na fi ay ndaanaan yu bëri ñoom ñu ngi fi man laaj leen ñoom naka nañu naka nañu gisee Mbay Guy gi ak lan mooy préparation contre armée ak nan lax naka la champion nuyu naa la. ñoo ngi lay fay. waaw tey ñoo seeti champion bu mag nga xam ne ni moom def na loolu nekk si arène bi looy wax. waaw ñun avant tout dañ koy gërëm xam ni ku baax mooy moom ku fonk ay booyam comme taalibe quoi gëm lu muy def waaw te xale la bu baax. pare nañ ñun côté côté yëpp ñun ku ñëw instant nii mu ñun ba Mbaye sa bu taxaw ñun pare nañ pare nañ carrément mystiquement lépp pare nañ ñun instant yii ñoom ñoo ci des. dañuy daaw rek ma ñu daaw ñu kenn ku bare dañuy bëre barke Ahmadou Bamba moom xam na loolu. ñoo ngi si lépp par nañ carrément fàtt nañ fépp ñoom la ñuy déglu instant yi. mais nga 2023 bi dina bëre moom ak Armé. bien sûr bëgg nañ ko. mais jàpp jàppaguñu. jàppaguñu daat ça dépend que mu dawaat kooku moom dañ koy daw rek si lañ dëkk mais bu taxawee dëgër boppam lekk avancé suñu contrat bu téye big bi lekk caaxaan faaxee dañ koy daan moo xam ne loolu. jaajëf champion. waaw ah, beneen ndaanee nañ beneen ndaanaa ngi nii. waaw waaw. ñu ngi lay ñu ngi lay siyaar grand di la jox sa waay di la baalu ak ci koor gi dina la baalaak di ñaan yàlla sunu kàddu fekk leen ci jàmm yéen ñëpp waaw ñun moom comme li comme li nga wax rek pare nañu trois fois làmb bi yàqu loolu rek dafa doy mbay fi mu ne nii même dama ko yërëm parce que pare ñetti yoon combat mu yàqu dafa me pare benn yoon dong yombul waxuma laa ñetti yoon nag ci benn adversaire loolu dafa metti quoi dafa metti ñoo nekk fii mais yàlla sedd na ne metti na trop trop metti foo ko que tak romb na ko parce que préparer benn combat donc dafa metti waxuma laa nga lekk benn avance pare ci ñetti yoon mu yàqu nga boole loo am loo amul lépp def ko ci làmb ji te mujjul xam nga dafa metti quoi nañu xoolaat affaire yi bu baax a baax mbay pour pour man boog bu fekkee affaire bi logique la rek même bu dee day bëriwaat ak amit dañu ko war a feyaat beneen kàddu parce que waxuma la avance am mais double avance trois fois dugg na ci làmb ji kon xam nga loolu métti na bu fa metti yem na ci gars yi xoolaat bu baax waaye vraiment métti na. waaw ah, beneen ndaanaan ngi nii booy mii xaritu mbay guy gi looy wax lu tuuti rek. waaw armé na waaj rek na waaj boobu ndaw bi la fi fekk de pare nañ fépp pare nañ fépp esaay moom rek a si des lu mu andi fii la fekk billaa wallaay cent cent pour cent Médina bi ngeen di wax mi ngi si yéen ba léegi. bu baax ñoo ngi si bu baax mille pour cent sax billaay wallaay gars yi dañ pare de képp ku jël mbër avance booy doo dootoo nelaw am nga problème bu bëri billaay wallaay. yow lay wax. kii nag tànk nday mbay guy. ah ah maa gërëm de. waaw loolu wax de amul. grand champion yow nuyu naa la. waaw comme ça waaye lu mu wax rek ndeysaan préparation dafa metti mu des 4 jours comprendre nga nga dugg si mystique yëpp togg ay añ lu nekk nga dugg si ñu ne la loolu mënul nekk yàqu na quoi léegi yow loolu noo ko doon dund. waaw dañuy sant yàlla rek julli si yoneen bi gërëm suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lam ñuy nuyu waa Medina 1 ba 45 ñuy nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm suñuy xarit suñuy soppe suñuy grand frère. sunuy supporters rek a fi ne ñu ngi leen di bëggee ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di nuyu waa Bawol fu ma dëkk Réfane Sousouma Réfane Booxa ah. maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñu ngi baalu ñëpp ak ci koor gi di baal ñëpp ak ci koor gi ah di wax ne làmb ji aw leen lu ma ci wax ah waaj naa ko waajaat ko waajaat ko trois fois mu yàqu kon aw ma leen lu ma wax damay toog déglu staff bi rek lépp lu ñu wax rek ñu ngi leen di déglu mais ba léegi ñu ngi ci contrat nag suñu diggante ak xam nga di xaar di déglu nag sunuy kilifa ñu wax quoi waaw ñoom rek la ñuy déglu luñ kilifa yi wax daal loolu la ñuy def incha allah. waaw mais yaakaar nga yow ci biir 2023 bii di nga bëre. waaw am naa yaakaar ne buñ koritee sax damay bëre parce que ñu ngi ci quoi ñu ngi ñuy wutal date mais yëpp dañuy toog waxtaan rek xool nu mu naay sa ñu defe ko noonu. comme ubbiwaat nañ Iba Mar est-ce que yow duñ la duñ la yóbbu Iba Mar yéen ak arme waaw mais bu ñu fi yóbboo ñu jël mais Iba Mar moom xam nga ba léegi joxoon nañ fi gaa yaay dat te làmbamut xam nga ba promoteur yi dajaloo kaas affaire yooyu mais man naam balaa ñoo korite ñu tijji ko jox leen ko bu ñu fi joxee suñ datit ñu bare ko rek yàlla may ñu ndam rek waaw keroog keroog ba ñuy def seen manifestation bu maa ngi fa woon Fallou Ndiaye dajale ñëpp nee na man fay estat fay policier fay sapeur fay mbër ñu togg seen añ préfet bind benn lettre ne moom làmb du fa am. loolu moom xam nga rek euh, réeroo moo am ci diggante waa CNG ak préfet bu dakaar rek ñoom ñoo réeroo waa seen biir mais xam naa ne bu déggoo woon waa CNG bu ñu demoon laajte ñiy joxe stade bi ba pare euh, door a waruñoo joxe date dañu war a dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo am droit signé stade bi. bu buñ signé ba pare nga door a joxe dat quoi mais waa CNG foofu ñoom laay jox toor bi quoi ñoom ñuy joxe date te demuñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo war a jox stade bi ba pare. waaw moom dëgg la moom nee na moom bu ñu réglé wulee problème bi vendredi bii di ñëw ba si topp ñun ñëpp dañuy génn def mars bu ñu jox leen stade bi encore Fallou Ndiaye loolu la wax. non Bira Sène moom ci moom laay wax rek ginaar gënu gàddu la rek. CNG moom xamul lu muy def xamali ma la parce que da ngay gis léeg-léeg def yoo xam ne. yaa ma gën a xam da ngay gis muy def yoo xam ne sax doo comprendre parce que fii ay mbër am nañ fi combat seeni ménagère taxaw kaas dans deux mois ñu ñu dem wuti beneen combat. mais ñun am nañ suñ combat mu yàqu-yàquwaat yàqu yooyu ci yàbbi comme ça mbër mu mag dafa am ak mbër mu ndaw mbër muy fayee ko ay centaine de millions ak mbër moo xam ne million yi muy fayee ko bëriwul yemanewuñu leen man loolu laa ciy kii rek mais làmb ji waa làmb moom rëccu nañ li fi Alioune xaaj bépp man moom rëccu naa ko man mbay guy gi personnellement rëccu naa ko quoi li fi Alioune jóge rëccu naa ko trop parce que yaa a gën a xam làmb ji tey bu subaa plan bi bu subaa ñu teg lii bu subaa ñu teglee ñi fi ne comme ñuy suye film quoi. moom bi nga wax dëgg la loolu moo wax tam buur dal seen kaw keroog mu ñëw stade ñu génnee ko diggante Tyson 2 caaka fay mooy yu mel nii xamal ni ñii yor affaire bi nii mënuñu ko yor. mais ñii yor affaire bi moom wax dëgg fa yàlla. CNG moom am na ñoo xam ne seen i bopp baax na mais am na ñoo xam ne seeni i bopp dara newu ci c'est faux li ñuy def dara baaxu ci bu teyee ñoon di règlement bi bu subaa ñu dindi ko indi beneen règlement bu subaa ñu dindi boobu indi beneen ba kañ nit da ngay tegu ci yoon ni lii moo war a am lii ak lii ak lii nit ñi topp ci charte yooyu mu arrangé ñëpp parce que bu dul promoteur làmb du fi am promoteur yee jël seen xaalis def seen propre moyen génne ko fay ay nit jaay seen ñu mbër yi jaay seen produit ñu ñëw bëre seeni i supporters ñëw ñu gis ci seen bopp promoteurs yi mbër yi gis ci seen bopp CNG door ciy gis boppam door ciy jël jàpp ci ay mbër di leen dagg xam nga kon liy wax ji mooy ñu gën a delloo promoteurs yi seen cër jox leen seen cër jox leen seen gëdd xam ne sans promoteur làmb du fi am saa mbër làmb du am mais promoteurs yi jiitu nag bu dul promoteur benn làmb du am Fallou Ndiaye moom ñu ngi koy nuyu bu baax ak sama papa Dieye ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm gis na ni taxaw xale yi gis nañ ni ñuy sonne ci làmb di jàppale ñëpp pour affaire yi jëm ca kanam waaw susuma nag sama papa Dieye quoi moom moom macha allah mais Fallou njaay moom ku koy mere ci dëgg nga koy mere ku koy jàpp ci dëgg nga koy jàpp moom ci dëgg rek lay ne man loolu laa ko nawe quoi Fallou Ndiaye promoteur doomu ndey petit promoteur quoi Fallou Ndiaye. Mhm. waaw mu desaat beneen question boo xam ne nii actuellement nii yëkkati ay ndaw yombul man dama gis ne boo jigee Médina bi yëpp jug ñoom daaw daaw ñoom asi ñoom ñëpp lan mooy secret. waaw xam nga lu tax man ma jógee booy yëpp jóg fii sequma fekk benn booy lu jàmm salaam xam nga ku ci xewle sa dara wax ma ko yoruma dara dama yëkkati li ma am ñëw jàpp ci xam nga nit li nga lee yàlla dimbalee nga muy tuuti as sa ñàkk nga jël ko bokkook booy yi xam nga man booy yëpp samay booy lañ. xam nga fu ma leen fekk ka foore man bu ma neexoon di ñor di li mbëri gisuma Medina fii mbër mu fi ne mu ma pay victoire amul xama li ma la amul mbër mu fi gën a ràññee ko mais du ma ko doxe duma ko waxee li may ne doxi samay soxla bu entraînement jotee ma dem entraînement bu toog waxtaan a gars yi jotee ma toog ñoom waxtaan bu tëddi jotee ma tëdd xam nga mais Medina moom aw ma seen fay samay booye fi ne samay grand frère samay xarit bu ma jógee ñëpp jóg loolu nag li tax sama diggante ñoom la parce que kóllëre gu ma seq ak ñoom la xam nga maa ñoomay ne suba ak ngoon xam nga bu ma jógee moo tax ñoom dañuy jóg ñëw taxaw ci yaam a gën a xam ba yàllay def li muy def mais ñun moom ñu ngi sant yàlla mel nañ meloon di dox lañ doon dox ne ci lañ ñëwaatoon xëy na erreur yi am ak lii am ma bën too ma toog atam yàlla woo xam ne bëréew ma lu mënul ñàkk la rek yàlla moom mooy xool ay mbiram nu mu koy defee rek xale laa damaa ne ci yoon mu ne tey bàyyil ma taxaw def lii parce que lii baax ci moom pour avancement am yàlla ay mbiram xamul kon dañuy sant yàlla rek toog déglu waaw. site bi bañ ma ko joxee yàggul. pendant trois mois quatre mois ñëwul. bon am na benn côté boo xam ne rek. yow rek yaa ngi si mën a jàppale pour ma xam ne ni ñaata combat nga am ak ñan ñoo la daan. waaw man bëri naa seize combat naa seize combat am naa ci trois défaites dégg nga de Balla moo ma daan Laay Goda ak Sarko ñoo ma daan waaw. mais jot nga ñan nga fàttaliku yow yoo xam ne yow yow yaa leen daan. ma ci daan kay bëri na ma toogee fi di leen lim du ma du ma du ma fi jógee nag. tamit trois ah, mais maam Balla bërki Demba Ndiaye laa daan. waaw sama kanam waaw door a bëreeg Sarko Alioune Seye Junior maa ko daan Iba mécanicien bébé bis mi ah. ay sii di jàmm gën ñoo ñëpp bu ma toogee di leen limbal fii du fi jóge ay ñoom bébé ba ñi ma daan bëri nañ torop moo toogee fii di ko lim du ma fi jóge kon boo jógee ci armée foo non ma jógee ci armée gannaaw bàyyil ba ma jóge ci moom ba pare rek waaw parce que gars yi nañ ko ku gaa xam foo jëm fu gars yi kun xamee foo jëm doo àggi mais daal bu ma ñëwaatee dinañ gis beneen mbay bu bees loolu moom maa leen ko wax te du ma bëree ci ñaari minute nag bu ma bu may bëree sama combat bii di ñëw baat bi di soufflé muy jeex. mu ne waaw loolu nga teg ka fan mbay. dama noo affaire la. daa am lu may wan gars yi rek. wan leen ne leen xaar dañ ma xaarloo woon sama kombaa am nu mu demee. dama leen di wan ne la ma newoon du ma jóg arbitre suuf la mu jeex ku ne dem ñibbi man noppal gaa yi dootu ma taxaw di xaar benn mbër xalaatatuma ko sax ci àdduna waaw billaay dama gis ni ni combat bi ba mu yàqoon nii kooku bu ma bëgg ma wax turam kooku nga xam ne moom moo la jël fat la def si yow ba nga delluwaat mbéy guy ba nga commencé waat am moral boobu entraîné kookal waaw mais tey jii kooku dam sama papa jéey la laa sama papa jéey moo ma jël ubbi ma këram xamali ma la may entraîné suba ak ngoon yóbbu ma ba géejawaay xam nga ma tëlu fa liggéey liggéey manqué wu ma dara sama papa jéey xam nga manqué wu ma dara may liggéey entraînement jox ma xaalis du ma manqué dara sama papa jéey moom maa ngi koy sant di ko gërëm ak ak Abdou Seen jarbaatam maa ngi koy sant bu baax a baax a baax moo ak Abdou Seen jarbaatam di ko béggee baax di nuyu ay soxna soxnaam nag taa say ah ak taa kumba ak taa say na bu ñoom ñëpp maa leen di béggee di leen ñaanal jàmm bu baax a baax bàyyi laat sama doomu ndey maa ngi koy bëgg bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu ñëpp di nuyu Medina bi di nuyu it sama gars yi commerçant yi Sandaga Petersen damay xëy damay gont foofu laa ne maa ngi nuyu ñëpp ñoom Cheikh Thiaw sama doom nday am ñoom Ibou Ndaw sama gars yi mafia bi yëpp daal maa ngi leen di ziar di leen bëggee Petersen ñoom maa Lambaay Modou Waly ñoom Jaraaf ñoom Laat Cissé Pono Moussa xam nga ñoom Jib Seen maa ngi nuyu gaa yëpp ñoom Omar Sos Modou Fall Touba maa ngi koy bëgg baax doomu nday Omar Sos Modou Fall maa ngi koy bëgg baax di ko ñaanal jàmm grand bu baax la dal may taxaw dal may jàppale maa ngi bëgg nag ñëpp Abdou Tall itam maa ngi koy bëgg Abdou bu mbay guy gi Abdou taal maa ngi koy bëgg bu baax a baax dama ko tuddee damay def ndog yu rëy Abdou Tall laa ko tuddee sama doomu nday sama xarit. kañ la. waaw loolu maa ngi ko bëgg a def la 11 avril. 11 avril waaw xam naa dinañ fi teewaat le 11 avril. dama ko bëgg a def le 11 avril dama ko bëgg a def ndog bu rëy incha allahu rabi ñëpp teew. waaw yaa ma gën a xam ma woo presse bépp ñu ñëw. mais foo koy defee. waaw dama maa ngi xool nag. dama ko bëgg a def le pass dafa ndoor ri 11. defe naa ko ri 11 mais ri 11 ak ri 13 benn la avant may dëkk ri laa dëkkoon mais ñëpp samay booy lañ fii amul xaajale fépp benn la mais damay xool nu mu gën a rek ma defe ko noonu ñëpp ñëw ma woo bii di ñëw mooy troisième édition quoi ma koy def ndogu yi waaw. mais dama gis ni ne tamit boo jigee wàllu billet yi ay Bamba Fall wala ay Abdou Aziz Ndiaye ay ñoom Seydou mais ay ñoom Messi est-ce que ñooñu ñëpp dina dinañ ci jàpp. non billet moom kenn ma fa ma sa may jàppale ci ay billet mooy Seydou moom ma ma sa jàppale jëndal ma billet Bamba Fall mosuma jàppale Messi mosuma jàppale xam nga. yaa may dégg sama papa Aziz Ndiaye itam xam nga damay jàppale jëndal ma ay billet. pour yi may may gaay ak yooyu ak sama papa Seydou Guèye ak sama papa Dieye ñooñ daal ñoo ma may ay billets ba may bëreeg léegi saa bu ma may combat ñoo may may ay billets ma koy may booy mais Bamba Fall mosuma may billet Messi mosuma may billet dégg nga ah, waaw loolu moom dafa ñaaw ko en tant nga nekk Medina ak Bamba Fall lu mu melax ah, yéen. mais coo jëbal mais tey jii xam nga tey jii ku ne ci rek xam nga mbëri itam mooy loolu man tolluwuma fu may toppe ci ginnaaw ken Médina fi nee naa la mbër amul mbër moo fi ëpp ay victoire amul mbër moo fi gën a siiw mënul ne ci àdduna xam nga mbay guy gi man foo dem xam nañ ma maa ngi sant yàlla doxew ma ko waxew ma ko nag mais du damay dem di topp ay politiciens naa la lii yaa bëgg ñu tudd la ñu topp suñ ginnaaw jàppale la da ngay ñëw jàppale ma ma waxtaan ak ñoom ñu jàppale la point looloo fi am waaw mais gis naa ne tam yow doo mën lépp bëgg a nekk si entraînement bi bëgg a nekk si yëfu bopp mais est am nga koo xam ne ni moom moo lay doxal lool. waaw mais gars yëpp a nga koy dox sunu combat bi jàll ñun ak Zarko Baye Mor fii la ne dox na ci ñu dem mairie ba déposé suñu këyit ak yëpp ñu jox ñu këyit mais ba léegi ba nii dara génnul kon mooy loolu da ngay gëm sa bopp rek toog say nit jàppale la nga taxaw entraînement mel dem ci li nga war a ne ñoom bés dina ñëw dinañ la soxla buñ la soxlaa nga téye rek. loolu mooy dëgg parce que yi boo koy xool bu ca biir doo xam lu muy niru quoi Seydou Gueye mii amuñu feyam chaque combat da ci jàpp bu baax parce que affaire bi yéeg-yéeg la comme li mu la wax ci Bamba Fall loolu moo am da ngay am combat dem ci ñoom mais pour nga gis leen problème la fu ne ngay dugg lu ne ngay def mais loolu warut mbëri ñoom bu mbëri amee combat ñoom ñoo war a déplacer ñëw ci mbëri yi parce que mbëri amuñu temps wu déplacer dem ci ñoom muy Bamba di Messi képp ku nekk Medina pour jeunesse bi jàppale la mbër bu fi amee combat voilà xam nga di wootee fii bu mbër amee combat du dem seeti ko mooy ñëw ci mbër yekkati la mu koy jox jox ko kooku yëg-yëg la kooku bu amee bés dañ ciy jàpp ak nu mu mën a xew Seydou Gueye Bamba Fall mënoo fii mbër mosu fi am combat Bamba Fall jàppale la te ñun ñëpp Medina lañ bokk te da ngay mu ngi jàppale yeneen mbër te da ngay déplacé dem ci moom ay trois fois quatre doo ko mën a gis ñu naa laa tey ëllëg suba loolu du yoon moom moo war a déplacé ñëw ci mbër yi def li muy def ak ñoom dal di dem. waaw mooy la wax nii sànq saa waay du mën lépp est-ce que dina am na koo xam ne ni war na ko mën a doxal loolu. li mu la wax na dañu déplacé quatre fois. di di jóge fii di dem ba yi ñu naan demal fii defal lii indil kayit bee def waaye loolu lan la da ngay dem bu doo xam lu muy niru. nit jàppale la nag te moom da lay soxla du la jaral yenn affaire yu méttee métti yi da ngay toog di ko déglu rek bu la soxlaa nga téye sa loxo affaire bi loolu la fii àdduna la jàppalante la rek moom day soxla population bi population bi moom la mbay guy gu yor parce que bu jógee Medina ak yëpp jóg kon moom moo war a jóg di ñëw di ko fekk si di waxtaan ak moom pour bu soxlaa population bi population bi mën a dem si wetam. waaw loolu moom mooy yoon loolu mooy yoon. waa mbay uh-huh. sa diggante ak Tapha Tine waa Tapha Tine sunu mag la ñu bokk dëkk muy sunu grand moom lañ xool ba bëgg làmb dugg ci làmb kon kooku moom amatuñ leen luñ koy wax sunu lépp la Tapha moom ca kaw ca kanam rek roi bi rek lañ soxla roi bi courant bi lañ teg suñ bët moom lañ bëgg yaa ma gën a xam ñu teg suñ mu ne ko coppet jël ko ñu yóbbu ko bawal loolu lañ bëgg ko quoi waaw dégg naa seen maire tam loolu la wax nee na bés bu téye roi bi mhm. pour mu jóge si loxoom day métti. wax na dëgg Tapha bu téye roi bi ku koy jëlati ci moom moom leen ëpp doole moo leen man te lañ ko doon def di ko jàpp ci ay gàllaaj di ko daan yooyu amatul léegi ñëpp yeewu nañ waaw kay mooy lool waaw naa moom ak Eumeu seen léegi mu taxaw. waa mais gars yi daal ñu ngi ci combat yooyu yëpp ñu ngi ci mais Eumeu moom bu ñëwee dañ koy boole ci raa bi rek këlëmti koo ko jëlee ko suukaru koor rek am a gën a xam aw ak moom tabaski ne ci jàmm rek waaw ndogu yi nag laay woo gaay quoi Ndiaye Fils Ndiaye Fils international sama doomu ndey sama xarit waaw moom itam tudde naa ko ndogu yi quoi Ndiaye Fils Mohamed sàndaga moom it ndogu yi tudde naa ko sama xarit la sama doomu ndey Mohamed Sandaga yaa may dégg Fallou Fall Touba moom itam tudde naa ko ndogu yi sama doomu ndey la sama xarit la da ciy jàpp samay xarit yëpp maam góor Sam Abakara xam nga ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp laa tudde ndogu yi parce que samay waay lañu fàllu ñoom ñëpp maa ngi leen tudde ndogu yi pour ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp ci kanji kanji moom aw ma fayam kanji moom sama waay la sama xarit la waaw Cheikh Omar baara Sarr yaa ma gën a xam ndogu yi ñu ngi ko ciy woo borom Touba Cheikh Omar Bara Sarr ñu ngi koy woo ci ndogu yu baax borom Touba kanji PDG ñu ngi ko ciy woo sunu grand sunu xarit moom da ciy jàpp bu dara du dara da ciy jàpp teneen la nag bu ko kenn yëgee yaa ko wax mais nit ku la defal lu baax danga koy wax Kandji moom ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax sunu waay la sunu xarit la mbay nderep itam ñu ngi koy woo sunu xarit sunu doomu ndey mbay nderep sunu waay la sunu xarit la quoi ñu ngi koy woo ci ndogu yi moom it mu ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax parce que xam nga rek nit lii boo xewlee am nañ bu buñ ko defee mais dañuy bëgg gaay dugal ci seen ñàq pour affaire yi gën a am ampleur pour ñëpp ku ne ci am ci sa ba noonu la demee moo tax ñu ngi ci woo gaa yëpp ñu jàpp ci maa ngi bëggee nag Mor Baye Fall sama doomu ndey sama xarit borom centenaire borom Touba ak Maas maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax mook doomu ndey Cheikh Kanté borom Grand Yoff Maas maa ngi koy bëggee di ko ñaanal jàmm bu baax di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaw. champion waaw kon ñun nuyoo ñu tëj waxtaan bi. waaw ñu ngi sant yàlla comme nee moom ndogu bi moom. ni mu lu ñuy def te yàlla rek tax loolu moom képp ku di jullit ku ne bu ñu la ci wooyee da nga cee war a am feer yàkkamti pour dem ci loolu même ci woowaale comme ñi nga wax léegi Seydou Guèye Bamba Fallin ñëpp ñu ngi leen di woo ci ndogu li ñu ñëw dugal seen loxo parce que comme li mu la wax lu ñu moon la lu mu mon la moom mais dafa rafet bu jógee ñoom ñëpp ñu jóg ñëw dooleel ko mu gën a yaatu loolu day tax mu gën a naaj rek. booy lay wax si ndogu bi. ah ndogu pare nañ fépp daal yaa ma gën a xam. na gars yi ñëw dugal seen loxo rek affaire yi neex ñu dogu si jàmm waaw ànd ak mbéy mi. waaw lay wax ci. comme d'habitude rek xam nga ni ñu ndogu yi moom chaque année dañ koy def bi mooy troisième année mais dañ si wóolu ñëpp Medina Fass Colobane Gueule Tapée cent pour cent mille mille pour cent Medina bi xam ne seen doom moo woote ko mbay na ndogu bi dañ koy def dafa war a neex comme ni mu waroon neexee ko ren daa war a neex noonu la fa demee ñëw autorité ñu ñëw jàppale ñu. ñu xam ne lii dafa yàlla tax la quoi jëlewuñu si kenn am nañ xaalis ñu ko defee quoi mais def pour ñu xam ni man mii dugal naa sama xaalis dama sa war a jàpp ndax si yëfu yàlla yàlla la quoi moo gën di jël sa xaalis di ko jox sa loo xam ne mooy loolu comor comor ñoo ngi woo ñëpp waaw maa ngi ciy woo ministre de la jeunesse waaw kii te mu dëkk parcelle ministre de la jeunesse maa ngi ko ciy woo bu baax a baax a baax maa ngi ko ciy woow ministre de la jeunesse di ci woo Ibou Laye bu xarañ loo Ibou Laay bu xarañ loo maa ngi ko ciy woo bu baax ndogu yi ma war a def la 11 avril maa ngi la ciy woo Ibou Laay bu xarañ loo bu baax yow sama doomu ndey nga sama xarit nga Papa Sow maa ngi ko ciy woo sunu grand sunu xarit ndogu yi ma war a def la 11 avril incha allahu rabbi di ci woo ministre de la jeunesse mu ngi jàppale ndaw ñi mu ngi taxaw ndaw ñi mu ngi wutal ndaw ñi liggéey xam nga li ma la pour bañ Sénégal kenn sonn ministre de la jeunesse ñu ngi koy gërëm bu baax baax a baax di wax ne li la sa Macky liggéeyloo yaa ngi ci taxaw yaa ngi ci ministre de la jeunesse ñu ngi lay bëggee di la ñaanal jàmm Pape Ablaye Ndour waaw ministre de la jeunesse ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm bu wër jaajëf grand kii nga xam ne ni moom moom moom site bi muy Sénégal sa mbokk taaliba la mais Cheikh di Mbacke looy wax si moom ah li ñuy def mooy euh, sëriñ ak taalubeem la rek ñun ay taalube lañ Cheikh Sidi Mbacke ñu ngi koy ziar bu baax di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal télé bi dem ba doon ay télé ci barke borom Touba parce que ku bokk ci njabootug Serigne Touba moom lépp loolu laal rek daa war a jëm ca kaw te ci kattanu yàlla dina jëm ca kaw waaw Cheikh Sidi Mbacke ñu ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm baax a baax a baax. yow nan ñuy tëjee looy ni a ngi liggéey liggéey bu bu doy waar xam nga nag yëg ngeen ko ab yëgoo leen ko mais ñoo ñu koy seetaan chaque jour yéen fi ne daf la leen neex. d'accord champion nee na ñoo fi nekk yow looy wax ci Sénégal. waaw Sénégal sëriñ ak taalibeem la rek day yomb rek di ñaan rek xewal yokku mu jëm ca kanam doon ay télé yu bëree bëri ci barki Cheikh Rafal